Jamila man ma euh, est-ce que ce n'est pas le fruit de négociation la levée du du du euh, est-ce que amul ay mbir yu ñu nekk di jéem parce que fan yii yëpp ñu ngi doon wax wax waxu deuxième dialogue Pierre Atepa Goudiaby toog na fii mhm. euh, moom nee na Macky Sall ak ousman Sonko ils doivent se parler mhm. am na beaucoup de bonne volonté yu jéem bien que les tentatives ont été fructueuses et infructueuses mhm. euh, yow tanewoo ñu foofu grand yow. da ngay jàpp naa ni que négociation warut a am ci application décision de justice bu dee état de droit lañ nekk. non loolu sur le principe laa wax. non non non mais sur non sur le principe. sur sur le principe ngay mais mais mais ci li nga réalité ci ci li la réalité je peux te dire que négociation fi. Macky Sall n'est pas dans des dispositions de négocier pour quoi que ce soit avec Ousmane Sonko c'est ça la vérité. Macky aujourd'hui il a pas de négociation je te le dis ci sama à mon niveau d'information je formel il n'y a aucune négociation de quelque nature que ce soit entre Ousmane Sonko et Macky et le pouvoir le pouvoir n'est pas dans des décisions dans une logique de négocier quoi que ce soit sur l'application de justice c'est ça la vérité les gens ne peuvent sortir ce qu'ils veulent et faire dire ce qu'ils veulent